nafila 22 guddi ñaar fukkeel gi ak ñaar ci weeru koor sopp nañ ko ci julli ñaari rakan rakan bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon sabbih isma rabbikal a'la inna anzalnahu qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas lu ci nekk ñetti yoon yàlla dana ko tabaxal ci àjjana juróom-ñaar fukki dëkk yoo xam ne dana am junniy pale pare bu ca nekk dina am junniy néeg yoo xam ne urus lay doon ak xaalis néeg bu ca nekk dina am junniy lal lal bu ca nekk dina am soxna mbokk yi ku ci bëgg yeneen leeral nga dellu ci Xurratu Ayni bu Sëriñ Suwaybu Mbàkke page 149 Ila